waaw 17 avril moom nañ ko gisee mooy yàgg cee ñëw rek vraiment waaw chaque at moom dañ dañ koy teewee waaw loolu moo ñu fi indi. ak appel yi nan la inspiration bi ñëwee. waaw appel dama ko bàyyi naa ko Touba isaan ma ko dégg sama doom day lëx-lëx mu ngi Touba ma dénk ko <laughs> waaw. non waaw inspiration moom ni mu ma déggee comme ni mu dikkee rek mooy suñ borom moom dafa la bëggee dafa la bëggee teral bëgg laa kawer rek day jekk jekk jël dara def ko sam xel noonu la ma dikkee rek ba ba ba ba mu yëpp tey waaw. lan moo la ci gën a marqué. man nag appel appel moom yëpp ma marqué mais bu Baye Ndiasse bi nag moom ma gën a neex quoi Baye Ndiasse borom borom xar mi moom moo ma gën a neex ak borom dibiteeri bi waaw ak borom dibiteeri bi Baye Ndiasse borom dox gi moom daal moo ma ci gën a marqué quoi waaw. waaw am ndaw waaw bu am ndaw it xamoon appel yi ma def yëpp marqué parce que yëpp laay mujj bu ma mujjee dugal de man dama koy ree ba sama rongoñ di waat man yëpp laay ree ñu ngi gis aussi beneen daam boo xam ne mu ngi def même concept que yow tey lan mooy def différence bi yéen ñaar. waaw loolu moom dama ci kontaan ndax kooku maa ko jox muy soxna jaara euh, sama xarit la sama xarit la jour bi ma jógee Dubaay rek këram laa dal. Euh, fekk muy def maa ko wax maanaam ko yow jigéen nga doo defee appel yi day dal parce que def ko ngay jàpp góor ñi man maa ko wax moo tax mu def ko. ma ko koy rafet lu baax di wax ne affaire moom noonu la affaire dama koy yaatal du ma soñoon wallaay laas ñëpp def appel yi waaw kontaan na na gars sem jeex na. ñu ngi lay fay yaa ngi ci jàmm. sant saa baay rek sant samay deux waajur maa ngi sant yàlla bu baax a baax. sant ja xanaa neex na lekk nañ ba suur sànceel suñu biir yi lekk nan lekkate lekk nañ luñ mës sa lekk sànceel nañ sunu biir ah am na yoo xam ne kay xaw ma am gis naa fi mel ne xeer te xaw ma ko woon. du yàpp dañ ko suy ci kaw. lu neex lekk naa ko te wax dëgg yàlla mosuma fee lekk daal. neexee na lu ne. am na yu bari daal yoo xam ne si télé bi laa ko doon gis si naa ko tey lekk naa ko bay bëgg a dee di ñaan yàlla ñu fekkee déwén déwén yàlla guddal fan te wéral cër sa relation gi yaa seen basketteuse la. banaa ko. ah lan ma ci ñooñu saari tur yooyu xamatuma leen. mais banaa ko na de. non damaa génn si ñooñu rek man am na ñoo xam ne sa wartuma seen i mbir. sa nit sa jigéen sa lépp. jabar sax da nga koy takk jékki-jékki wàcc ko. mais lan la la man dama ko ba rek. kon rëy na ne lim la maa pare ci mbiram de. laaj ma ci keneen. Yacine sa waay la de. woon. sa doomu ndey woon. woon. lu waral li ni yàlla. ci nga Mbaye li wax nee na da nga enquêté Sonko jamono bi waaw. waa kër Sonko amul xarit de ñooñu moom amul xarit duñ joxe kuy ànd ñoom day ànd ñoom te yàlla tax. mais Mbaye ban fit la am waxal. ah Mbaye ñëpp xam noonu ko. waaye foofu ñoom jàppal ne euh, joxewuñu xaalis kuy ànd ak ñoom da ngay ànd ak ñoom te yàlla rek tax. fan ànduma ak Sonko de. lu dama àndoo ak man ànduma ak kenn man bëyu àll awma kilifa kenn moom ma kenn moom ma ànduma ak kenn. waaw waaw. léegi ko bëggee jubóole moom luñ ci ah, yomb. de kooku kay su ma seen sànq sànq taa yi xa rangu laa a rangu rangu. rangu nga bëgg a jël barke kay. li may man gis naa ko ci rangu. jonge na yëf am na fit. Euh, tadu mbiifañ mbiifañ mooy booy waga yooyu nga xam day def yëfi xaj te moom doxut yooyu te doonu ko moo tax ma bëgg waaye ay góor jigéen goo xam ne sëñ bi da ngay tent mel noo góor sa tànk yi gën a dëgër samay tànk. mais yow boobu yaa gisoon nga ko te terewul yaa ngi ko doon wax. am na am na ñoo xam ne seen biir ñoo gën a dëgër sama biir bi mel na biirub góor te ngay jigéen. seetlu ma ko woon. ah xanaa bi ko bàyyi nga ko. yooyu yëpp seetlu ma ko woon dama cee doog yéex a jug bi ma duggee bay xoolaat laa pare ci mbiram pare naa ci xoolal ma keneen man daal jigéen lay wër wëruma góor. ndax màggal gi noo koy waajal. xanaa neex sant sëñ Tuubaa di ñaan yàlla fekk koy déwén yi déwén loolu lañ koy waajale ah bu jeexee ñoo xam ne jeex na bu déwénee ñu mu ñëw rek nañ ñaan yàlla daal bu ñëw fekk na fi rek waaw. ajjuma gu ñëw romb nu suñ bakkan yi di génnee ngelaw loolu daal la ñuy ñaan. jërëjëf yàlla yàlla guddal fan yi. am nga question ñëwal. cuun sama xarit lañu bokk dëkk Touba muy bool bool comme man ñu bokk lu def muy ku baax ñu ànd waaw ah, ça dañ leen di. nee na lan mooy seen stratégie pour tiktokeur yi nga xam ne dañuy tiim seen sëriñ si di leen saaga. seen sëriñ yi di leen saaga li stratégie si. maanaam mooy seen. wax ko ci olof na wax bu baax giñ ma soo géej mi xanaa nañ cee fayee ko weer da ngay ñeppee ko bu baax ma xam. <laughs> nee na. waaw ah. nan ngeen fas yéene xeexee tiktokers yi ne ñu ngi ci internet bi di saaga seen i sëriñ. ah loolu dañ cee mën dara ñoo koy saaga ni ci réew mi ñoo nga seet bitim réew na leen fi état bi jëlee indi leen loolu lu ma ci ñun ci luñ ci man ñun luñ ci man romb jàll leneen mënu luñ ko kuñ ci saaga mu tëj ñu police kuñ ci wax na ko suura mu tëj la bët sama yoon néew ci romb jàll rek ku ma amal relation ama yow relation sama sëriñ na ko na ma ko sama sëriñ lijjanti man lu sama yoon man lu ma ci man mënu ma ci dara lu sama yoon gëm sama ma man ci dara ndax man bu ma saaga mën lu ma sama bopp daal. Omaro maa ko tooñoon <laughs> maa ko tooñoon de waaw jubóo noon maa ko baalu ah, waaw xam nga lu tax boobu dafa am lu fi jaaroon ma tafoon ko daal wax lu ma saf ba pare envoyé ko ko na mu xool ko loolu metti ko faalewu ma ma gis ko tey daal di am kersa jéggulu ko. jërëjëf.